saana ilaahi bil munaajihaati wa abadan axna yadi an haadi saana ilaahi bil munaajihaati wa abadan axna yadi an haadi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi ni jàkkaar lool waaye bokk yi ni dégg bu ngeen déggee xasal am yi ngeen xam ne jotaat na ndigal fa ndigal baax a bàyyi ko ci sëriñ Tuubaa sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général de Mouride mi ñëpp ni ñaanal yàlla Mbacké mu yàgg lool te wér ñëw ci sëriñ Ebo Mbacke xalifa Cheikh Ahmadou Fadal Mbacke ak sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa Cheikh Abdou Khadir ak sëriñ Fallilou Bousso xalifa sëñ Afe Bousso ak mboolem njabootug Bousso ba gépp bàyyi ko ci kilifa gu màgg nag sëriñ Bousso Bousso ba ngaaj mi nga xam tey mooy kilifa mboolem ku sant Bousso di bis bu rëy bis bu dafa baax a woote yàgg ko woote ku xool jataay bi day feeñ mooy bisub lan sëriñ ñang bu sa baay faal bis mu di woote di ci fàttali ko la ju falilu di ko ci sant waaye da ñaana si Abdu Xaadir Mbàkke bis boobu nag njabootu sa ñang bu sa baay faal jotaan ndigal xalifa bi toog nii di sëriñ saam ànd rakkam yëpp ak njabootu sëñ bu Baye Fall ci teewaayu suñ baara bu sa waaye nag seen baay bu baax bii nga xam ni fa tabarakalaaw kilifa yooyu ma tudd ñoo ko yabal ni ko teewal fa muy Cheikh Abdoul Ahad bu sa mu bisub cant ñaan bis bi kañ lay doon altine juróom-ñaari fan mois de mars 2022 fan lay xewee fii ci kër suñ bu sa ñang Baye Fall mu yaa ko woote lool mbokk yi bis boobu kon la bëgg a woote di ñaan nag yàlla yóbbu nu ca jàmm kon daanu yëkkati kàddu gu jëkk gi jébbal ko sëñ Mourtada Bousso moom sëñ Cerno moom sëñ Afe dina woote ci mboolem mbokk yi ak wëllëre yi xarit am na jàmm yi geneen kaddu gi den ko jox sëriñ Paate Seck dina woote ci kaddu taalibe yi dayire yi soppe yi xarit yi wëllëre yi kaddu soxna yi nu jox ko soxna ja maam jang Bousso mu woote ci kaddu mboolem soxna yi waaye nag nu xam bis bi nag ren dafa am lu yéemaru ci xaw sëriñ Baara def ko waaye def ko ci ndigalu magam ju baax ji sëñ Sam muy lan da ko tuddee jàmbaar ñaayu xare muri saadeex bëgg sëriñ Touba kooku may kan sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Aliou ko tuddee waaye kan la ko dara jaara nag jigéen ji nga xam ne wax ni jigéen rek laa di jëf góor mooy kan ajatu moomi kebe moom la ko tuddee ak kan soxna maam Faati Mbacke moom sëriñ Siidi moom Cheikh Abdou Lahad ko dara jaare tudde ko sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Aliou kon daal bis baa noonu tey jii nag ñu ngi fii dajee ci bis boo xam ne ni sunu mbokk du sunu kilifa du sunu mag Serigne ñang buso Baye Fall moo ko naan woote naka jekk di ci sant Serigne Fadilou ak di sant maamam Serigne Afi Bousso ak Serigne Abdoul Khadir xam Serigne Niang Bousso Baye Fall nag ca daan ko dégg ñaare du dégg ci kàddoom mu wax ba daanu ca tudd Serigne Fallou ak Serigne kon moo daan def at mu jekk di ci daan ànd mbokk yëpp ñu fi jógee nag doomam yi tey sëriñ Sam ànd ci ak mboolem ay rakkam jawrinam sëriñ Baara ak soxna maam Dia ak ñu ngi ko seqal ak mboolem taalibe yi ñu am yéenay fàttali ko ci bis boobu di ko ci ñaanal di ci mottali yéene ji nga xam ne moom amoon ci diggante kilifaam yu tedd yooyu mooy sëriñ Amadou Fadal ak sëriñ Afia Bousso te ku ne xam na ne sëriñ Afia Bousso waaye jur la ci Cheikh Amadou Fadal sëriñ Afia moog soxna Awa Bousso bokk lépp kon sëriñ Ñang Bousso Baye Fall bu ci dee fàttaliku ñooñu ca ku ne xam na ne moom sëriñ Abdou Khadir moo ko yar kon ci kilifteefu Cheikh moom Cheikh Abou Baraka Mbacke moom Cheikh Abdou Fadal ak Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir ak mboolem seen i njaboot ñoom ci la ñuy taxawale bis ak mbokk yëpp kon ñu ngi ciy woo mbokk yëpp di leen ko yëgal te leen ko fàttali lu ci waaye man ci jàngal Qur'an ak jàngi xasida ak dafay salaatu ala nabi ngir lay ko bisu bu accès ñu bokk àndandoo ñëw yendu fii fàttali ko ñaanal ko ko ngir mottali yéeneem ji amoon ci bis boobu bis bu mu fonkoon la it ñun ñëpp yëpp dañ ko daan ñëw di ci ànd ak moom kon bu yàlla dogalee njabootam gi tey wutu ko fi di ko di di ko mottali loolu sant yàlla kenn ku nekk loolu lay ñaan yàlla am njaboot goo xam ni boo leen wane ginnaaw danañ mën a mottali sa yéene kon sëriñ bi ñu ngi ne mi ngi ci woo ñëpp di leen ci soññ di soññ taalibe yi ak wëllëre ak soppe yi ndax moom ku yaatal woon ni mu jëflante woon taalibe yi li mu jëflante ci ay soppe ak ay mbokk ñëpp moo ko ku woyof la woon ca mën a fekk lépp kon yaakaar naa bu ko fayee bisam bis bi dana mel ni kon sëriñ bi mi ngi ci woo ñëpp di ko yëgal mbokk yëpp te di leen ci séentu di ñaan yàlla ñu àgg jàmm ca lépp luñ ci ñaan suñu borom nangu ko ca moom mi nga xam ne moo ko taxawoon ci njaboot di ko àggal suñu borom dolli ko yërmande ca ñu baax ñi ngi ciy ñaan ñi bi nga xam ne si ñoo nekk ci koñ bi doon taxaw bis bépp ñu ngi si woo ñëpp mboolem koo xam ne si yaa ngi dégg suñu kàddu rek ñu ngi lay woo di wax ne ñi ngi ko daan defee rek noonu lañ ko fas yéenee defee ndax si ñang bu sa Baay Faal doon na kenn koo xam ne si lépp loo xam ne sii tey ñëw na rek dinaan bala ñoo def dara nan waaye daayira bi kon képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu ak di ko xool di ko gis ñu ngi lay woo ci bis bii nga xam ne si mooy bisu sëñ Fallou bii si ñag bu sa Baye Fall doon ko def jëmmam ji tey gisuñu ko waaye mën neen ne mi ngi fi ndax sëñ Sam Bousso mii kat fépp foo xam ne si tey sëñ bu se tegoon na fa tànkam kat teg na ko fa kon ñi ngi woo mbokki taalibe yëpp di woo jullit yëpp képp ku dégg suñ kàddu rek ñu ngi lay woo ci bis bi te xam ne maanaam kat nañ ko daan defee rek noonu lañ ko fas yéenee defee ndax yoonu suñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am kon ñi ngi soññi ñëpp di woor ñëpp. dañoo jëm ci loo xam ne bis boo xam ne bisub sëñ Fallou la di woo sama mbokk jigéen ñëpp nag di soññee rek kàddu yi du gudd ndax kàddu soññee la di soññ sama mbokk jigéen yi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi. ak sama mbokk jigéen yi nga xam ne suñuy mbokk bopp lañu ñu bokkal ñoo ngi woo ñëpp di woo suñ mbokk yi ñi sant Cissé di woo suñ mbokk yi nga xam ne ñoom it ñoo ñoo bokk askanu Mbusoobe di woo suñ mbokk yi sant sëy ak Seck ak ñëpp ñoo ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne moom la sëñ Ñang bu sa daan def di ko defal sëñ Fàllu ñoo ngi woo ñëpp di wax rek bis bi nañ ko daan takkatoo ñun jigéen ñi buñ ci des ginnaaw nañ takku ba mu nekk wenn say àndandoo ko li eh, defar bis bi ba bis bi jag ndax lépp lu jag jigéen loxoom a nga ca biir kon nag maa ngi soññ sama mbokki jigéen ñëpp bu kenn des bu kenn des bu kenn des ginnaaw na ñëpp pare bis bi ndax bis bi rekk tax lépp lu fi waay def yàlla na suñu borom saafara ay ay soxlaam ak ay itam yëpp di ñaan rek ñu egg ci bis bi ak jàmm salaam. di jotaat ndigal ci suñuy kilifa ñun ñëpp. teew fii ci bis bi nga xam ni moom lañu sunu waajur sunu ñang bu sa bàyyi fa lan taxawee di si sant Cheikh ak Serigne Abdou Khadir démb na nag Sam dem suñuy kilifa te am léegi suñu Abo ak Serigne Cheikh ak Serigne El Hadj Fallou ne moo ci rajo Serigne Afia si ndigal ba nu ko woote nu woote bis bi nag nu koy wootee comme ni ko sunu waajur daan wootee rek mooy mbokk yëpp comme ni ko Cheikh Mourtala waxee sëñ bi njaboot mbokk yëpp ak njaboot njabootam lan surtout taalibe yi mu ngi leen si soññ bu baax di ko yëgal mbokki mbaro yi nga xam ni ñoom la bokkal waajuru jigéen ak mbokki mbosoo bi suñu Abdou Lahad ngi nii teew suñu Mourtala wax na seeni kàddu di ko yëgal mbokki ndakaaru peut-être Paate mi ngi nii teew teewal fi mboolem de waa bépp di ko yëgal sëñ Abdou Fatah Cissé ndakaaru euh, sëñ maam Gumba Ndaw ndakaaru di ko yëgal mboolem mbokki ab sëñ Ablaye Sow ak mu féete ndakaaru mu nekk Thiès mu jiite ndeer bu ne foofu ni koy dañ koy woo di ko soññ sëñ ab eh, sëñ Ablaye Diop Jiwaalo ni ñu koy woo di ko sëñ boobu Boubacar Mbour ak mboolem mbokk yi nga xam ne nooy taalib yi aju ci kër gi. sëriñ Sam nag neen mi ngi woo mboolem mbokk yi nga xam ni noo dëkk ci koñ bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dëkkaloon te ànd daan ànd ñoom bis bi te mos na see des ginnaaw kon mi ngi leen si soññ bu baax di leen si woo di ko di si di ko di ko yëgal sun sunu wël sunu wëllëre sëñ Balla Ndiaye yi nga xam ni suñu digganteeg suñu suñu waajur kenn la ak moom ni ko koy yëgal sa état yi ni nga koy ko si woo di ko soññ baax a baax ak njabootam gépp di si woo mboolem mbokki ciise yëpp ak mbokki mbaro yi ak mbokki njóobeen ak mbokki ak sëñ mat jaw mi nga xam ne moo féetee daaru leen ci ñu leen ci woo di soññ baax a baax a baax wax na ni bis bi ni ñu ko daan defee rek lañ ko defee fas yéene bu ñu xëyee jàng alxuraan ak xasida ak bernde waxtaane sëriñ bi sëriñ Cheikh wax na incha allah fas yéene yéene ni mu ko daan àndee suñu waajur noonu la ko fas yéene ñun kon nag nañ ko bàyyi xel baax baax baax a nag li li sabab nu nu jagleel ko mbokk yi nga na digganteek moom yàgg na lool mu jàpp na sëñ Tuubaa tax kon war nañ ko delloo njukkal si bis moom ma ni ko suñu góor waxee rek suñu diggante ak moom ak diggante si Sëriñ Abdou Xaadir ñoo xam nañ ko sono maam Faar Sidi moom yëgal di ko di ko baax a baax sono Jóob bàyyi Fallu Sëriñ Fallu ni nga ko wax yow ci Touba Darou Marnane ni ko si ni ko si woo di ko soññ baax a baax a baax ak mboolem mbokk yi nga xam ni ku dégg kaddu gi daal ak foo mën nekk si réew mi ak si bitim réew na la wóor ne Serigne Sam jël na kaddu jël war a mu jël tànkam la ko bëggee na nga fas yéene ngeen ànd koo ngeen ànd koo ñoom bis bi yi nga xam ne aju Kazu ba xaatir si njiital Touba Serigne Mamour Diatara jiite ko bu dee Ndakaaru Serigne Cheikh Goumbala waa Mbour Serigne Talla Gueye nekk Mbour tere Serigne Bakhar yi ngi leen ko yëgal leen ko soññ te ko

daayira Ahbabul Khadim ak rawatina daayira mooy bu naa bi nga xam ne moo lëkk jàngatu xasida yi si ngir sëriñ si Xaadim Gueye xam nañ leen si soñ ma sama diggante ñoom bis bi la am nañ la leen si woon soñ bëgg na jàppale ma si te sëñ Tuubaa tax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bis baa ngi noonu wata baa ngi noonu kañ lay doon bis bi màggale Kazu Rajab mu del see dëpp ak juróom-ñaari fan ci weeru tubaab mois de mars 2022 fan la ko wootee fii ci kër sëñ ñang bu sa Baay Fall woote bi nag ñu ci jiital njaboot sëñ Afe bu sa gépp dina xam ne kenn ci ñoom nekkan bàyyi faalu kër gi nekk muritu kër gi dëggal lool wéral lool moo ko daan woote dem àjjana bàyyi ko njaboot gi njaboot gi seen pas-pas ak seen yéene ak seen jom tax ni fas yéene incha allah dina ko woote waaye woote gi nag ne bu ñu ci ñemee sëñ Saam ne bu ñemee woote gi bu soo gis njaboot suñu aafe ñeme na waaye bu la gis ñu ne du mën a dem kon mi koy gër ñëpp jataay bi nag wane na ko. Cheikh Abdoulaye Bousso mi ngi nii toog sët suñu affaire la sëñ Ilimane Bousso mi ngi nii toog suñu affaire maamam Cheikh Moutala moo jël kàddu suñu affaire maamam kon bis baa ngi noonu ñu ko mbokk yëpp bawunu kenn bawunu fenn bawunu ñenn sëriñ Baara Bousso Baye Fall nag da ci woo nag mboolem nag njabootu Cheikh Rahima Fall gi ndax ku tudd kër gi tudd Cheikh Fall sëñ ak Bousso Baye Fall ñëpp xam na ko ak Baye Fall mu wér la ci kër sëñ baara mi dikk teg tànk yooyee jaar ca loola war na ko yëgal nag sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Fall xalif général da Baye di ko yëgal sëriñ Fallou moom sëñ Modou Aminta di ko yëgal sëñ Moussa Fall moom sëñ Modou Aminta di ko yëgal sëriñ Cheikh Ndigal Fall moom sëñ Cheikh Fall Baye góor waaye di ko yëgal sëriñ Amdi Fall Cikki moom Cheikh Abdourahmane Fall Cikki waaye nag di ko yëgal tam mboolem nag dayra ma waay bu naafi li jànkat xasida yi njiite sëriñ Xaadim Gueye waaye di ko yëgal itam soxna sa Isa Mbàkke ahlu kafe bindu Seex Moodu Faati Xari ak mboolem daayira ahlu kafe yëpp di ko yëgal itam mboolem daayira ne ci koñ bii rot na daayira sëñ Cheikh Mbàkkam sëñ Aliou mi nga xam ne bis bi mën nañu ko tuddee muy daayira mañ maamul nooree nii ak daayira asaabul ceeñeer ak daayira ahlu bi ñu ne ko yëgal di ko yëgal soppe ak mboolem waa leer gi ca Louga ko yëgal di ko yëgal bokk taalibe yëpp bawu nu kenn bawu nu fenn bawu nu ñan ku war nag diine di nga woo nag aada ko yónnee kilifa aada yi allah ji fàllali mbàkke moom sëñ mbàkke soxna loo ñëpp xam ko ci réew mi xam taxawaayam waaye sa goog ab taalibeem sëriñ Maxtaar Jóob nu ko ci woo muy xale bu am jom ku bëggum réewam ñu ko ci woo di ci woo nag mbokki taalibe yi mbokki julit di dëkkandoo yi xarit yi wala am na jàmm yi programme bi si nag muy demee xëy jàngal xuraan jàng xasaayit ci njiitu daara sëñ Mbàkke Lo ba dégg bëccëg nu berne kon nag sikar si ak tur yàlla wi tàkkusaan la ñuy def cérémonie bi ci teewaayu kilifa yi nga xam ne ñoo koy daan teewe sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom Cheikh Abdou Khadir teewaayu sëriñ moom sëriñ Ali mi ko tuddee waaye nag dara jaale ko kan soxa moom mi kebe jigéen ju mën góor ak kan ku ko dara jaale soxa maam Fatim Mbacké moom sëriñ Sidi moom Cheikh Blaat waaye noonu la ci wootam sëriñ Mamour Mbacké moom sëriñ Mourou Bousso ñu ko ci woo da ci woo sëriñ Cheikhouna Mbacké moom sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Lahad ak njaboot suñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ko yëgal nag daayira Maam Jaara Tindoodi bépp waaye nag di ko yëgal nag mboolem presse bi sëriñ Baara ku ko xam-xam ko presse may na yitte am ak ñoom yitte bis baa ngi noonu ñëpp bawul kenn bawul fenn wasalaam.